نيجي في تربيغا خامني مغي تود النصائح منهجيه لطالب علم السنه نصائح لا يبير منهجيه يري تكيون لا يبير خامني دا فاي تكيون لطالب علم السنه ني ساكو كم كم سنه مام ني كوما سي الشيخ حاتم بن عارف موكو طالب كان لا تي بولم كم كم فوفو makkatul mukarrama muy jàngale rek solo gi xam-xamu xadis am solo foor gi xam-xam boobu foor foor bu ñooñ xam boobu foor loolu lay jàngale su ko defee di la tegit ci yoon boo bëggee am xam-xam wala nga ma mokkal li ngay jàng walla mu sax ba ban yoon ngay jaar bal dina la jàngal ba jàngalaale la sax boo bëggee nekk mu xaddis bu mag yéen téere nga war a jaa jàng waaye dana la xamal ne loolu mooy su fekkee amoo ustaas boo xam ne mën na laa jubanti waaye soo amee ustaas jëlal téere yi la ustaas bi jox bu dul loolu nag mën ngaa jàng téere yooyu <coughs> mun a joxe su defee dana def yu am solo ba léegi-léegi boo koy dégg sax dafay mel ne almu xadis xëy na moo gën a foor fiq moo tax ñu commencé woon téere bi njëkk nga xam ne xatibul Bagdaadi moo ko def moom dana andi xatibul Bagdaadi ci téereem bi toxala yoo xam xatibul Bagdaadi moom wane na ne fiq moo gën waaw waaye dafa fekk ñaareel kuy taalif ci fànn rek da nga yëkkati fànn boobu leeral ko waaye doo doo doo jël leneen di teg ci kaw fànn boobu parce que yow fànn boobu nga bëgg a jàng jàngale tey moom nga bëgg ñaax nit ñi kon dañ leen wax nga nee ni fànn googu rek ko defee ngëneel yi nga dégg ci ñu wax ci fànn bi yëpp ci xadis bu mu jaar tax nga jàpp ni moom moo ëpp solo fiqhu déedéet bañ nañ ko bu ñuy tànn imaam faqih bi lañuy njëkkee teg si mu xadis bi muqaddimatun li may commencement téere bi inna alhamdu naka cant li laay na yàlla nahmaduhu danañ ko gërëm wa nastainuhu ñu dimbandikoo ko wa nastaxfiruhu ñu ngi ñu ngi musul billahi ci yàlla min shururi anfusina suñu ay bakkan ku nekk war naa mu suuf si yàlla ci ay bakkanam ndax ay bakkanam rek moo ko mën a lor nit ñi lañ def lépp <clears throat> ñoom lay lor suñ defee lu bon ñooy am bakkaar buñ la xasee ñooy am bakkaar buñ la tooñee ñooy am bakkaar buñ la yéenee lu bon wala yequl makru sayyu illaa bi ahli yéen a juboon ci njabootam rek lay dellu su ko defee eh, la lay lor yow mooy sa xëyu bopp sa xëyu bakkan soo defee sa bakkan bi boo yéene nit lu bon yaa am bakkaar mm-hmm. boo waxee lu bon yaa am bakkaar boo jëfee lu bon yaa bakkaar mm-hmm. su ko defee kon nit xëyu bakkanam moo ko mën a lor moo tax war na si muslu yàlla wa min sayyiaati a'maalinaa ak suñuy ñaawi jëf ñu ngi muslu yàlla suñu jëfi ñaaw yi mm-hmm. nit ku nekk jëfam ñu ñaaw moo ko mën a lor waaye du jëfi keneen wala taziru waaziratun wizra uxra kenn du gàddu bakkaarab keneen man yaa di ka jubal na ko allahu yàlla fala mudil la déet aji réeral la xoo di ko ñeel ku yàlla jubal keneen mënatul koo réeral bu àddina yëpp dajeexoon pour réeral ko mënuñ ko réeral ndax yàlla ko ginde yàlla nañ yàlla jubal wa man yàlla réeral kooku fala haadiya déet aji gindi la xoo di ko ñeel ku yàlla réeral namm ci moom ak réer àddina yëpp buñ dajeexoon pour jubal ko du mën a jub ndax yàlla bëgg mu réer <clears throat> yàlla nañ yàlla musal ci réeralam wa ashhadu maa ngi seede si dëggal an laa ilaaha illa huwa benn buur mi war a jaamu illallaahu lu ma yàlla waxdahu moom dong laa sharika dit xi rek bokkaale la di ko ñeel wa ashhadu maa ngi seede te dëggal an muhammadan ne muhammad abduhu jaam yàlla la wa rasuluhu ak yonentoom wasalla yàlla dol xewal laa yàlla afdala salaati xewal gi gën wa akmala taslimin ak sërmal gi gën a mat wax nañ ne xewal julli yàlla ci yonent bi sallallaahu alayhi wa sallam mooy mu jox ko yërmande salmal yàlla ci yonent bi mooy mu yokk teraanga ak ak màggaay am nañu wax loolu waaye yàlla xam dëgg-dëgg nu julli gi gën daal ak salmal yàlla nekk ci sangu doomi aadama képp kuy doomu aadama rek yonent yàlla muhammad sallallahu daf ko tànn génne ko ci ndigg baayu laab ak yaayu laab yi am na ñuy ŋàññi waajur yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo xamul rek suñ xamoon duñ ŋàññi waajur yonent bi abdullahi mi wax naan amal xaraamu fan mamaatu duunahu def lu xaraam dee ko gënal kooku xam nga ne xemawut kenn yonent bi ñaari nit duñ tàqalikoo lu mooy yàlla xool na ka ca mu def ca mu def ca muhammad sallallahu alayhi wa su ko defee kooku ay waajuram duñu moromu keneen ñoo gën ñëpp <coughs> yeneen xadis yi ngeen di dégg yëpp ñuy wax ne waajur yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi safara ñu ngi nangam wérut waaw li wér rek mooy lu nitu yàlla yi wax nitu yàlla yi nga xam ne ci yàlla lañ am nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaarut ci ku suufe comme ni mu ko waxee ci ay xadis mm-hmm. ay waajuram it mucc nañ ne nitu aljana lañ yàlla fooral lañ noonu la yàlla fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa dafa laab innamal mushrikuuna najisun xéebéeri ay sobe lañ yàlla du jël yonent bi nag ay sobe mhm. du def loolu lam dundee laab ko nàmpal ñu ay jurit lañ mhm. wala xataa xalimatu santé mi nàmpal yonent bi sax jurit la bu mhm. ci nekk di werante nag bàyyil ñooñu nga xam nii lu la nekk rek neex ñuy wax waaye Cheikh Tidiane moom xam na ne xalimatu santé mi nàmpal yonentu sax jurit la ndax yonentu yaramam ab sobe du ko dundal te xeebee sobe la mm-hmm. bu fekkee yàlla wattu na ko ba pare te yaram bi yëpp sobe la feese yëpp sobe la màggee sobe la dundee mm-hmm. <coughs> gi mat ala saydi wal di aadama yàlla nekk sangu doomu aadama al mabuusu kañ xebal rahmatal mu di yërmaande lil aalamiin ñeen mbindeef yi Muhammad tamay Muhammad Abdullahi jaam yàlla wa rasul ak yonentoom mm-hmm. waala ali ak ñooñam wa asaabe gay saxabaam wa taabin ak way topp leen yàlla na yàlla doole xewal bi sallallahu alayhi wa sallam ak yi ñooñam ak i saabaam ak képp ku leen topp amin mu ne amma baadu gannaaw ma sant yàlla julli ci yonent bi <clears throat> fay ne talaba ilmi nekk sàkku xam-xam min azamil ibaadaat yi muy bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg wa sawaabuhu tiyaabaay sàkku xam-xam yafdulu dana sawaabu aksar aksaril qurubaat tiyaa bàyyi li ëpp ci jaamu yàlla yi tiyaa bàyyi xam-xam moo ëpp tiyaa bàyyi lu bëri ci jaamu yàlla jaamu yàlla yu bëri tiyaa gi nekk sàkku xam-xam nekkul mënu wax yëpp nag ndax jaamu yàlla yi dafa bëri waaye daal tiyaa bàyyi sàkku xam-xam ah na jaamu yàlla yu gën wa subulu taxsilihi yoonu amal ko maanaam yoonu hut xam-xam subulul jannaati mooy yoonu aljana yi boo bëggee xaw ci yoonu aljana rek awal ci yoonu sàkku xam-xam booy xaw ci yoonu sàkku xam rek yaa ngi xaw yoonu aljana boo xawee yoon woo xam ni dara taxul la fa xaw lu mooy xam-xam boo xam ne yàlla rek a tax nga di ko wut ngir xam noo ko jaamoo mën a rafetal sa digganteeg moom ba ëllëg du ngeen am le xamal na yàlla dana la yombalal yoon woo tegu ba dugg aljana boo xawoon yoonu safara boo ci bëggee génn rek demal di sàkk xam-xam booy sàkku xam-xam yàlla tàggat la yoon bu baax di la xommat di la xommat ba nga dugg aljana yoonu aljana la li mu bëgg wax lii xadis baa ko ku yoon di sàkku xam yàlla yombalal ko ko dugg aljana soo xawee yoonu wut xam-xam rek yàlla teg la ci yoon woo xam ni aljana la jëme tuzilluhu dana ko keral al malaayikatu malaayika yi fiiha ci yoon woowu bi ajnihatiha si seen i mbagg xaadiatin di way bu xaw yoon wu muy xaw malaayika yi ñëw lal seen mbagg yi pour mu jaar ci seen kaw waaw wala boog nga ne malaayika yi dañuy wàcce seen bopp toroxlul kii saaku xam-xam loolu la gën a niru nag hadis bi wax na ko yonente alquran wax na mm-hmm. leen wax fit lahuma janaaxa dulli min arrahma wàccee leen mbëggi mbëggi toroxtaane ngir yërëm leen sa ñaari waajur mm-hmm. doomu aadama amul mbëgg waaye foofu na nga sa bopp rek lañ ci nam mm-hmm. kon it wax ne malaaka dañuy wàccee seen bopp ci kanam kuy jàng <clears throat> moo tax ab jàngkat loo réy réy réy ba ci kanamam wàccee sa bopp rek nga amaana malaaka yi yàlla gën fuuf na gën malaaka yi yombut waaw te noo mën a mel jibril la gën moom ñeenti malaaka yi moom xamuñu werante ne ñoo gën ñëpp nit doon a gën yenn malaaka yi waaye jibril rek mikaayil israfil Israël ñoo gën ci malaaka yi comme ni ko téere yi waxee su ko defee xaddis bi na def ne malaaka yi dañuy wàccee seen mbagg ñeexal borom xam-xam génnewut ci kenn génnewut ci benn malaaka su ko defee moo tax ab jàngkat ñëpp dañoo war a wàcc ci kanamam mm-hmm. dégg nga waa tunazzalu def nañ wàcce mm-hmm. ala majalis yi wala boogu tunzalu danañ wàcce ala majalis yi si jotaayi xam-xam ya assakinatu dal wa rahamaat ak yërmande yi mm-hmm. yàlla barab yi nga xam ne nii barab yi la dafay wàcce dal may leen jàmm wàccee fa yërmande <clears throat> yoo xam ne sécurité ma leen ko xereñ mayul leen ko dara mayul leen ko yàlla leen ko wàcc rek mm-hmm. ñaareel yërmande dafay wàcc xéwal dafay wàcc dal dafay wàcc bara yi xam-xam yi mm-hmm. farad yee yàlla gërëm allaahu yàlla an sahari tilka layaali ci fokk yooyu la guddi mm-hmm. fil jiddi ci góorgóorlu wa taxsiil ak wut xam-xam ñi nga xam ne ñooy ñàkk nelaw guddi di góorgóorlu ngir am xam-xam yal na yàlla gërëm leen bu ane im kaw ndaw xewal gu mag bi tilkal xutaa ci yooyu la jéego fii talabi ulumi tanziri si sàkku xam-xami alquran mu ne xéemal ñooñu di dox ay jéego ngir sàkku xam-xam bi nga xam ne ni al si xam-xami alquran la te xam-xami lislaam yi xam-xami alquran la maanaam màggal màggalal waneel ki nga xam ne nii mu ngi dox ay jéego ngir wuti xam-xam ne ko xam nga xewal gu mag xewal goo xam ne xewal gu nu ko rëy yonent daan wax ne ko yàlla may alquran nga gis ne xam na keneen ku gën koo xam ne ni xam na li gën li nga xam nee na tuuti nga lu lu màgg waaye nga lu tuuti hmm. bu la yàlla xasee def jullit may la alquran may la xam-xam jàppal ne yow yow yàlla joxutul keneen li gën lum la jox mm-hmm. amut amut ku yàlla jox lu gën lum la jox mm-hmm. loolu amut kat te yaa gën a rëy ñëpp xewal góorgóorlu rek nag ba ñooñu nga xam ne yàlla defal na leen xewal googu nga nekk si ñu si gën a kawe waaye bul bokk si ñu si gën a suuf mm-hmm. waaw ndax xewal alquran amul fa mu yem noo góorgóorlu rek di gën a kawe waaw waaye daal yàlla ki mu bëgg dëgg daf koy déggloo diine ji man araada laahu bi xayran yufaqihu fi diin loolu la yonentu wax ku yàlla bëgg ci moom lu baax daf koy déggloo diine loo ci déggee mooy bu yàlla bu yàlla bëggul ci yow benn xiw daf lay xañ diine ji doo ko dégg la yàlla tànnee def la borom xam-xam rek daf may la alquran bëgg na la hadis ba ñëw na yowmal yàlla dana dajale borom xam-xam bu leen dajalee na leen defuma sama leer ci yéen pour mbugal leen dem leen jégal naa leen da ngeen defoon yëpp baal ko ndax lan ndax léegi nga xam ne defoon naa ko ci yéen xam ngeen ni defuma ko ci yéen ngir mbugal leen hmm, waaye nag lépp loo gis muy ngëneel moo xam ngëneelu borom xam-xam la ngëneelu nangam ngëneelu nangam ci kaw nga bañ a topp sa sago hmm. <coughs> di góorgóorlu sa kéemtalaay kàttan kon jéego yooyu ngay dox ngir wuti xam-xam jéego yooyu jàppal ne ci dëri aljana nga koy dox jéego yooyu xamal ne xewal gënul koo mag yow mi yàlla may loolu wa azim màggalal bi zahidina ci way dëddu ya illa fi miraasi nubuwati lu may ci miraasam yonent bi sallallahu alayhi wa ñi nga xam ne ni soxlawuñ ci àdduna dara lu mooy li nga xam ne moom la fi yonentu bañ war koo doon xémal ñooñu màggalal ñooñu miraasam firawna miraasam yonantu lu ci gën a rëy xalal yaa dina miraasu firawna rek laa ki njabootam fi dinaar bàyyiwut fi wurus bàyyiwut fi xaalis xam-xam la fi bàyyi nee na ku ko jël jël nga cër bu law ñi nga xam ni nag ñoom miraas mi fi yonantu ba war ko doon ci lañ njëkkalante ba xam ca bokk ci ñu doon yonantu bi sallallahu alayhi wasallam xéemal ak màggaay ak ñu ci ne ci gaañe la bokk fekk seen agut pënd gaañe xam-xam bul gaaw a jox sa bopp ne ci ñooñu i borom xam-xam nga bokk ñun borom xam-xam yi wala man borom xam-xam loolu xëpp naa wax mhm. góorgóorlu rek góorgóorlu rek buñ la joxañee waxal amin rek amin rek waaye bu mu tax nga yaakaar ne eh, nga ca mhm. jàppal sa bopp taalib buy jàng di gëstu nga xam ne yu si bu yox tew léeg-léeg mu wax lu jub léeg mu jub mhm. ña doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ñuy xëccoo ci miraasam yonent bi ba kenn du leen ci ëppale màggal leen alhaajirina ñooy gàddaay almadaaja tëdduwaaya wala awtaana ak réew ya wala ak dëkk ya alaaxisina ñooy jàpp alkitaaba téere ba bi quwatin ci góorgóorlu ñi nga xam ne ni banañ seeni lal yu neex ya nekk ci kayit yaag mm, téere ya ñi nga xam ne bàyyi nañ seeni dëkk ak seeni njaboot seen i xarit ak seeni waajur daal di tumuraanke nekk foo xam ne ni xamuñu fa kenn ñi nga xam ne ñooy téye téere ba di ci góorgóorlu di liir di jàng di ko jëfe di ko jàngale mu ne màggalal ñooñu wallaahi ñooñu ñu jë ñu jërë màggal lañ ñi ñooy taar àdduna àdduna amul taar bu ci gën a neex li <coughs> amul taar bu ëpp lii amul teraanga gu ëpp lii su fekkoon ne dañoo nekk ci néeg boo xam ne nii dégg nga <coughs> néeg ba boo fa nekkee danga soxla dégg nga euh, gaz boo xam ne ni da ko noxee waaye néeg ba nag ñaari waxtu rek lañ fi am boo amul gaz boobu nag da nga noxee waaye noxee gi dana xaw a métti tuuti dégg su ko defee néeg boobu nag am na ay kayit yoo xam ne nii mu ngi fa kayit rek la mm-hmm. waaye bu ñu la joxee kayit googu ñaari waxtu yi bu jeexee boo génnee ci néeg bi yow ay kayit milliard ay milliards la ko yàlla soppi ay milliardaire lay doon milliardaire ngay doon mm-hmm. milliards yu bari waaye bu fekkee gaz bi nga xam moom mm-hmm. danga nga nooy nooy gu neex ci néeg bi gu feex waaye boo génnee doo xam dara faqiir la te ci bitti war nga faa dund juróom fukki at ki jox gaz ci néeg bi xañ ko téeree ak ki ñu jox téere bi xañ ko gaas yi kópp xewal parce que ñoom naa yëpp ñu ngay nooy kii nooyam gi dafa métti bi ñaari waxtu rek la bëriwut mm-hmm. mu génn nekk ci dund juróom yoo xam ne milliardaire la te gaas moom dafa nekk bëriwul njëriñ far mm-hmm. nag jox nañ la ay la kayit yi foofu mën nañ la la mais kayit yooyu nga nekk ci di lii rek nangam ak nangam mu di la wéttal mm-hmm. ah boobu sax mën naa waral mbir sëb nooxib gaz bi ñàkk nooy gaz bi doo ko yëg nga génn nekk milliardaire mu génn torox xam nga ne yaa am xewla yaa xew mm-hmm. ki yàlla jox xewla àdduna nag te joxut ko xam-xam mm-hmm. ak yàlla jox xam xañ ko xewla àdduna noonu lañ mel mm-hmm. loo xam nag ci bu yàlla boolee ñaar yëpp jox la xam-xam jox la xam nga ne yàlla teral na la de moo tax rëdd lool ci xam-xam looy ñàkk bul ko ñàkk moom waaye looy xamit na ci bokk ndax mooy tax boo fi jógee fii ci àddina gi nga xam ne yàggut dem xalaa xalaa gi xam ne ay milliards at nga fay dund maanaam xamul fu mu yem nga nekk ci teraanga ak dappet loolooy xéwal nit dafa xeewu yàlla nañu yàlla may xam-xam ak jub mu ne fenn xajiba ne mu yéemu na min hada sanaayi ci bi la tagg al qalil bi aji néew fi taalibi almi si sàkkatu xam-xam al jëlil bi aji màgg su fekkee tagg gu néew gi ma tagg ki sàkk xam-xam daf laa yéem yow mi mu xéem saaltuhu maa ngi koy laaj moom mi nga xam ne tag gi da koo xéem billaahi ci yàlla maa ngi lay laaj jële yentalu ci yàlla xal dabbat ndax jukkat na ala ci kaw suuf si xutaa ashrafa ñaa ay jéego yi gën a tedd min xutaa taalibi ilmin ci jéego yi ku sax maa ngi lay laaj ci yàlla waxal ma rek te yàlla tax ndax mas ngaa gis ku dox ci kaw suuf gën a tedd kuy sàkku jéegoom yooyu gën a tedd jéego yi kuy sàkku xam-xam mm-hmm. ndax ñay dox ci kaw suuf am na ku ci gën a tedd sàkkukatu xam-xam mm-hmm. mboolem jéego yi jéego yooyu jug di dal ci kaw suuf si ngir sàkku ci xam-xam jéego yooyu moo ci gën a rafet moo ci gën a taaru moo ci gën a taaru xam naa ne suuf su muy dëgg sax kontaan wal xawat ndax làq na al asxaaru njël ya mooy fajar ya wal ab kaaroo ak suba ya ajad ku gën a góor góorgóorlu minu sàkko te xam-xam fii tale bi ci la muy sàkku ndax mos ngaa gis koo xam ne la muy sàkku moo gën a wóor moo gën a foor hmm. kay sàkku xam-xam la muy sàkku la ngay sàkku ni gën a baaxee rek dañuy wax ne yow li ngay sàkku jidd la du caaxaan waaye booy sàkku la xam benn ndax xam na kuy sàkku lu gën a foor gën a nekk lu wóor xam-xam déedéet waxal marra ndax romb naa la asmaa ci nopp yi alazza lu gën a neex min dëndënatil mutaxafisina ci ngurum turub ñay mokkal di tari wa zajalil qaariina ak coor jàngkat ya ndax nopp mos naa dégg li gën a neex waa jooju mukkal alxuraan di ko ngurum turu bis wala boog jàngkat boobu di coow di jàng ca kaw nit ñi di ko dégg ndax kàddu yooyu nopp mën naa dégg lu ko gën a neex wala nopp mosu dégg lu ko gën a neex su fekkoon ne yàlla may na la bànneexu kàddu yooyu ndeysaan waalim tala at ndax fees naa alqulubu xol yi haybatan ci wegeel li misli mun kabbin nim feesee ci ku sëgg ala kitaabin ci téere ki nga xam ne dafa sëgg ci téere di jàng wegeel gu ko yàlla may ci nit ñi ndax mos ngaa gis kuñ wegee noonu mukk la àdduna buur yi dañ leen ragal ndax doole ñu ñam borom xam-xam yi ragaluñ leen ndax doole waaye dañ leen a wekk ndax xam-xam waxalin sharaxat ndax ubbeeku na asuduru dënn yi illa fi majalisi zikri lu may si jotaay euh, xam-xam ndax dënn yi danañ feex kontaan lu mooy buñ nekkee ci jotaay xam-xam faray dënn yi di ubbeekoo faray dënn yi di féexee faray ñuy fàttee njàqare yi mm-hmm. waxalin aqadat ndax fasu na al amaalu mbébéri jëmee waa seen illa ala xilaqi taalimi mooy ci gébi jàngale yi ndax nit ñi yaakaar nañ ne seen bébé suba dana sotti lu mooy gannaaw buñ jànge géew yi ñuy jàngalee fa lañ yaakaar ne fa lañ bébé yëpp di sotte mm-hmm. ndax wudutoon xam-xam kat dara du dox waxal nazala ndax wàcc na assakinatu dal wa rahmatu ak yërmande ala misli daarisiina mel ni comme nu mu wàccee ci ñuy jàng li kitaabillahi ñeel téere bi yàlla alazim bi aji màgg bi ñuy jàng téere bi yàlla bi dal gi leen yàlla may yërmande gi mu leen wàcceel ndax mos nga gis ci ñeneen kenn xamul lu waxal tata daa alat ndax suufe na urushul muluki dégg nga lali buur illaa inda manabiril ulama yi lu may fa min baru borom xam-xam yi nit dana xeeb lalu biir lalu buur lu may ba mu jàkkaarloog borom xam-xam bi ca min bar ba ak taaram ak leeram muy jàngale mu dugg ci xol yi nit de dana dem ba kooku daal di xeeb sax lalu buur yëpp mbébétoon yàlla jox ko lu mel ni jël nguur yëpp waaw loolu xewoon bu njëkk hmm. buur bi yàlla daf may alal ju bëri mu nekk nguur waaye dem na ba ci mu gis ni lii àdduna caaxaan rek la ak naqar ak fitna mu gàddaay ko dem di maçon di dund di di di di jaamu borom beneen buur gis ko ni ñi tàgg buur bu njëkk ba wax ci moom lu rafet ni muy dimbalee ni ñi ak maçon gam nekk daal ni ci xereñe buur boobu xoolu ko mu bañ ndax buur la ni moom nguur la ba soxlawul ko mm-hmm. mu fekk ko mu daw ba mu topp ko ba jot ko laaj ko luy sa mbir mu wax ko luy mbiram mu ne ko li nga nekk gënoon nga ko soxla moom it ba nguuram topp ko ñoom ñaar ñu xam ne di ñaamu yàlla ba génn àddina mm-hmm. ñooñu xeeb nañ lali buur yi ndax bànneex xam-xam mm-hmm. wala amara ndax dund na almasaajidu jàkk yi fi awqaati salaati ci lu dul waxtu julli bi misli majaalisi taalimi comme nuy jotaayi jàngale yi di dundalee jàkk yi ndax jàkk dana dund ci lu dul waxtu jullu lu toll ni buñ fay toog di fa jàngale ni muy dundee axbiruuni xibaar leen ma billaahi aleykum maa ngi leen yentulu ci yàlla ndax gis ngeen keneen ko xam nga lu ëpp lii nga xam ni moom laa limal borom xam-xam yi summa asalukum topp maa ngi leen laaj billaahi ci yàlla hal taalamuuna ndax xam ngeen xayran ku gën min shaabin ci ndaw fi hada asri ci bi la jamono hajara gàddaay na adduniya adduna wa zahada dëdduna mara zaatiha bànneexi adduna wa naa sori na baidan di aji sori an shahawaatiha ci bànneexi bëgg-bëggi adduna wan azala mu beru an fitaniha bàyyi fitnaay adduna allati fitna yi nga xam ne tastafizu mën naa yóbbaale alxalimu ko am xel وانقطع مدق عن إغوات عن إغواءاتها تبولو أدنى التي جاي خم تستخف من يبالي بالرزين تكو دقر تنيو قل وترك مبايع الناس نني على دنياهم سن أدنى يتكالبون نني قلود جكلانتي Mm-hmm. wa hajara mu gàddaay min ahli si ñooñam wa ixwaani ak ay mbokkam mm-hmm. tanaafusum lu mu gàddaay tanaafusum xëccoo ga ñuy xëccoo mm-hmm. alal xusuuri ci pale yi wal amwaali ak alal yi wal manaasib ak ndomba tànk fayin marra nem romb na alal lax yi ci caaxaan marra romb na marral kiraami romb ak ñu tedd ña maanaam du ca dugg du ci bokk wayin taxarada nem gaarlu na loo ñeel ko al jaahiluuna way réer yi pour sabote ko enrada mu dëddu leen wa qaala ne salaam man jàmm rek ndax nee na mos ngaa gis ku gën ndaw lii ndaw li nga xam ne bàyyi na àdduna bàyyi bànneex àdduna sori ko beru fitna àdduna yi nga xam ne nii jaaxle tax na nit ñi talatuñ dara borom xel yi sax talatuñ dara ngir moom àdduna gi nga xam ne mën naa beewloo borom xel mi gën a mag amul pexe ci moom bàyyi na nit ñi bi ñu koy xëccoo mu bàyyi njabootam ak i mbokkam yi nga xam ne ñu ngi xëccoo pale yeeg ale yeeg noomu tànk bu gisee caaxaan du ca dugg way réer yi buñ ko bëggee dugal ci ak caaxaan mu romb leen fa nekk ci jàmm woowu moom maa zalika ànd shaabu ndaw la fii unfuwaani shabaab bi ci commencement ndawam amaamuhu nekk na ci kanamam mustaqbalun jubluwaay aridun bu yaatu wa alayhi war ko masuliyatu binaa i binaa in dégg nga masuliya ak tabax jadidin gu bees maanaam mm, responsabilité tabax lu bees war naa sos dara war naa defal dara am na yu bëri yu ko war ëllëgam ëllëg gu sori la lu ne war na ko wayam zuru mu ngay xool moom ndaw moom ila ufiqil baid ci gox yu sori nazratan xool goo xam ne mil waxa la ko fees al amalu mooy ay mbébét wala axlaam ak ay gént mu ngi xool fu sori foo xam ne mën ngaa wax ne dara sotteegu ci lépp ay mbébét la ak lu muy gént ak mu bëgg taxawal te daara sotteegut ci mm. tafuuru ma ngay jéqi fii ci moom garaisu shahawaat yi bànneex maanaam bànneex gi yàlla def ci moom mm. ma ngay jéqi comme ñëpp ndax nit la comme ñëpp waaye ji su ma ngay fuur fu aaduhoo xolam bilaxawaati fi ci ay ñeewenti am na yu bari yu mu bëgg ak yu mu bëgg taxawal ak lu koy métteeg lu koy neex mm. ak lu koy naqareeg yépp di jug ci xolam watan fajiru ma ngay ball dimaauhu deretam xamaasan ngir cawar ak bañ toroxtaane summa huwa topp moom huwa zalika allazi moom mooy waa jooju nga xam ne tajaawaza jégg na xaasa lii kullahu lépp hmm. wajaaloo mu def ko waraaw ci gannaawam zahriyan mu faree ko gannaaw hmm. wa bala mu jublaale leen mi ci xam-xam dafa bëgg wax ne ndaw lu jafe la ndax ndaw boo ci nekkee lu bëri dafay taxaw sa kanam hmm. nekk sa ëllëg nga am responsabilité war a defar lu bëri sa kanam war koo taxawal dégg nga am ay mbébét yooyu mbébét yu sotteekut am yaakaar yoo xam ni sotteegut mm-hmm. teg ci bànneexu bakkanam ci yow bëgg am nga bëgg-bëgg àdduna yaa ngi ñeewenti ay mbir ci ñeneen ci ay mbir mm-hmm. am na yoo xam ne nii da koy gis mu dina naqari nga bëgg koo faj mënoo koo faj sa deret ji nekk bañkat mm-hmm. bëgg taxawal dara nga yooyu yëpp nga jéggi ko bag yooyu yëpp gàllankoorul la nga sànni ko sa gannaaw daal di jublu xam-xam dëgg-dëgg mu ne ndaw loolu kenn gënu ko ala maraarati ànd ak weextanu xam-xam wan ka ba mu sëgg alal kitaab ci téere bi ala malaala ci ànd ak yokkat ak e, e, e, mm-hmm. nekk ci téere rek bu yàggee dañ ci yokkat waaye téewul moom mu ngi ci continué rek jublu xam-xam te xam-xam kat wut ko lu weex la lu naqadi la mm-hmm. mën nga ko ci dund waaye téewul mu ngi ko jublu rek way sa xan na bu som bu nammee ilaa inaaqi kaaxibin kaaxibin jëm ci doqwanteeg jongoma ji aji jugu ween xaala fatu mu moom yadaa yadaa kitaabin ñaari loxoy téere hmm. su bëggee doq doqwante ak jonguma ya dégg nga téere téere yi bañ hmm. mu ngi ci téere yi rek ba talatu sax ay jonguma wayses taxat ndem nam na chafataahu ñaari tuñam an yartashifa mu muccu hmm. ak rudaa ba jigéen ña tam-tam ma ngay ngërum turu mul tëzzan di aji bànneexoo bi qiraati kitaabin ci jàng téere bu bëggee muccu ay lor su ko defee bànneex bi mu jëlee ci jàng téere yi dana tax du tal loolu sax xataa dagg na al ayaaba fan ya fi taxsiili ci wut xam-xam wa saxara foog na al layaali guddi yàlla darsi ci jàng xam-xam dagg na dundam yëpp ci wut xam-xam foog guddi yëpp ci jàng xam-xam wa tartiili ak jàng alxuraan yaqra'u ma ngay jàng xataa tazuuxa ba mu jeng aynahu bëtam dafay jàng ba bëri mujj naqari wa yaktubu dafay bind xataa takilla ba mu sonn yeddoxoo loxom wa yadrusu muy jàng xataa yakidda ba mu sonn zihnu xelam dafay jàng ba xel mi sonn nga xam ne ni nelaw rek lay bëgg ax biru ni xibaar leen mën a afdala ku gën min hasa ci ki wax leen ma ku gën ki ma zalika kànd loolu fay na comme yara dana gis la ji naka la nga xam ne xoo moom fii ma ca xoo loolu alxayaatu mooy dund xaqan dëgg li muy dund ni mu metti métti jàpp ne la loolooy dund wa jënnatu daaril fanaa yi mooy aljanaay kër ak jeex sit xan ci dëgg gis nañ lim nekk mooy aljana ci àdduna maanaam loolu rek mooy bànneex ci àdduna yarxamu ma ngay yërëm أهل الدنيا وأدنى ويحنو ما غي نيوانتي على أبناء الملذات شي دومي بانيخي نيغا خامي نيغي توب سن بانيخ بولن خولي داف لين ييرم نيتو أدنى بولن خولي داف لين ييرم لأنه نخ موم يعرف خمنا أنه هناك موم على برنامج العلماء من شي بروغرام وبرم خم خمي ومنهج الأولياء من شي يون وليالي وخطة الفقهاء من شي جيغوي برم خم خمي فقهي وغايت الكبرى من كي ليغا خامني موي دوتر واي ني ماغي ني ومعارج الاتقياء من كي ليغا خامني موي رانيانو كاي ني راغال يالا فراني هيغي لولا وارال موم كو نيكو تي لول داف لا ييرم فيترن نامو ماغي رانام تالو دي واي بي القائل تي واخو واي كات بنان لم لم حبره تجالسني نهاري احب الي من انت الصديق ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق ولتمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق ديسان منال لم يحبرة أبدها بطدها تجالسني بطرق من نهاري اسم بچك بيب أحب موغن صب إلي جمس من من أنت الصديقي تي ويتل قريت مام قريت بمو بغ مدي مو di مام wéttee maam potu daa ju nekk sama wet mu toog ak man moo wax gënal ورزمتو كاغد تكي كيت في البيت ونيك شنيك بي عندي نيك فمن أحب موغن صوب إلى جمسي من من عدل الدقيق تنبوسك سنغوف مبوسك نيام بامفاس سنغوف بامفاس وانا مبوسك نيام رغلا شنام بامفاس أي كيت يندجل سموات موغ جنا ولتمة عالم بجك برم قم قم في الخد تلخ مني بوتو كيت من ألزو موغن نيخ لدي فمن min shurbi raxiqi ci naan ndox mu sell moomu di ndoxam raxiq borom xam-xam bi mbéj ma ma góorgóorlu dem jàngi ñëw tari moo ma gënoon nga jox ma ndox mu sedd mu neex moomu ma di ko naan bu defee loolu lay bàggante di ko wax mm, ñu xew foofu incha allah beneen dar suñu mottali muqaddima bi in uridu l islam wastata'tu ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu